READ at Home ben projet la ci baatu olof muy tekki li fantu ci biir kër gi doon benn composante ci PPADH pdf ex fédération du Bawol di ko mettre en œuvre moom ak Cayfan Sénégal fii ci région bu Diourbel li ko tax a jóg mooy xale yi ñu fexe ba outiller leen accompagner leen ak seeni parents ngir xale yi toll ci diggante 0 ba 6 ans mën a liir ci biir kër gi nga xam ne balaa ñuy dem di dugg CI dinañ am bagage bu doy ci wàllu wu ni mel. donc mu nekk projet boo xam ne une zone d'intervention moins 20 communes au niveau de la région de durbel mais ci communes choisir 100 villages dans chaque village dañoo identifier 25 bénéficiaires il projet bénéficiaires euh, projet à travers euh, dispensateur de soins à travers euh, engagement parental ñoom ñooy appuyé xalé yi ci lecture euh, à la maison. projet Read at Home ñëw ngex jappalé petite enfance ndax fofu la ñuy préparer xalé bi ngir mu dem élémentaire ñu duggal ci programme bo xamné da fay jappalé parents yi former leen encadrer leen accompagner leen jox leen ay livres. ci biir livre yooyu dafa am ay images yu fi nek yo xamné xalé bi mën na ko lire mën na ko xool xam li ci nekk xam ñaata nit ñoo ci nekk xam fan lañ nekk ak peut-être éventuellement lu ñu mën a waxante. Euh, ku mag ki nga xam ne moom mooy waajur bi wala ki koy gunge euh, am lu mu ko ci gën a leeral xóotal réflexion xale bi loolu mën naa am mais xale bi aussi tout d'abord ci livre yooyu def ci jànge naka la ñuy téye livre parce que boo ko joxee tu xamu ko mën na ko renverser juutal ko xamul sax livre bi fan mooy ci kay fan mooy ci suuf fan mooy page bi nekk ci kanam fan mooy ci ginnaaw loolu xale bi xamu ko te loolu dañ koy jàng ñetteel bi mooy euh, xale bi dina comprendre Euh, communication muy joko ci aduna bi deugenti ay nit wala ñaara nit nekul seulement ci wax mais mu ngi ci mbind aussi donc dina xamné mbind dafa am sens mbind dafay permettre aussi xalé bi mëna communiquer. choix maison modèle yi nag taxoon projet bi di Read at Home organiser ben rencontre fi ci centre culturel régional bu Diourbel. Euh, maison modèle nak boko déggé Babacar moy maison de référence moy maison bo xamante ni nii li wax ma ne c'est une maison à l'image de nos coins bibliothèques et nos coins lecture yi ñu am ci suñu structure DIP parce que boo duggee ci benn classe préscolaire da lay frapper, da ngay dugg rek takk nga gis ben coin bo xam dañ fay bind coin lecture ñu décorer ko am table am chaise am ay livre am lepp tout ce qui renvoie à la lecture donc bo xolé da ngay xamné fi dañ fay lire. donc ma ne maison modèle aussi moy ci sen kër yi fo xamantene ni nii kër goo xamante ne boo ci biir kër gi rek da ngay xamné coin bi fi lañuy ñuy fi la xalé bi di tok mom ak wajuram wala ko xamantene ni ci kër gi la ku koy accompagner ci liifantu bi fofu lañ koy défé donc mo xam mu nek fo xamantene dafa wara aéré wara am wara am éclairage wara am table confort bo xamantene ni dañ fay tok pour meuna lire ci xel mu dal ak ci téyu bakkan waaw ya xam ci par rapport à tes moyens mën nga falal basang ki mën na tek table am tek chaise ki amna bala am ku ci nek la nga am moom ngay duggee marché donc loolu lañ fay def pour xale bi mën a nekk ci condition yoo xam ne daal dina lii kon liggéey bi nag projet bi daf ci ànd ak ay animateur ak ay relais ngir ñëpp man ci jot ci anam yëgën ndéem ci phase essai la ñu toll tey lañ commencé ñu commencé si région de Diourbel wala département Diourbel ci biir département Diourbel tamit sept commune la sept commune yi bu ñu ko waxee commune de Diourbel ci la bokk Ndindi bi nga xam ne maa yor ci la bokk commune de Patar euh, Toki ay Ngoye yaakaar naa si la bokk Touré aussi si la bokk waaw léegi rek ñoom la dajale si chaque animateur yooyu nga xam ne lim naa ko ku si nekk da ngay indi sa deux bénéficiaires yoo xam ni ñoo lay accompagner si journée bi euh, pour assister que ñoom ñooy représenter commune bi yëpp que bu ñibbee dina mën a wax waa commune ba que ni réunion bi kat lii ak lii ak lii lañ fa jëlee. nekk nañ juróom-ñaari animateur juróom-ñaari animateur yooyu nag dañ leen a jël ku nekk indi nga ñaari représentant ñaar représentant moy ñu sét ba xam lan moy maison modèle ak lan lañ ko défaré ci biir lool tamit waxtan nañ ba am nañu déggo parce que maison modèle moy fi nga xamanteni fi dañ fa wara dajalé ay xalé ñuy lire maison modèle manam dafa wuy turam daal ñu fay dajal ay xale ñuy lire di déggo di jang ay quelques kii yooyu ay 30 minutes wala temps ñu tàqali ko te tamit maison modèle day doon loo xamante ne dañ koy décorer defar ko euh, defar image ba nga xamante ne fii boo fi ñuy di nga xam ne maison modèle la. bénéficiaires yi ñoom itamit kenn mënut a tudd xiit at home te boolewu leen ci mën nañu wax sax ne ñoom ñooy njàkk. bénéficiaire bi mooy ki nga xamante ne nii dafa bokk ci projet bi am doom. bokk ci projet bi. yaatuwaay nag tax na ginnaaw animateurs yi ay relais communautaire ñoom it associé nañu leen ci biir liggéey bi ngir mu mën a joti fépp Babacar Sall doon ci jokk ak yéen fii ci centre culturel régional bu Diourbel pour Moubarak TV.